association bi chaque fois ñuy def euh, formation solaire donc dañ may woo donc buñu ñu waxtaan ci temps bi ñu wara dérouler formation bi ak yooyu yëpp su ko ñu indi jeunes yi ñu tangat leen. mën nañ ne promotion bu ci nekk danañ former 30 ba 32 jeunes chaque promotion lool la donc 5e promotion bi ñom ñoo nek ni pour mëna a ñëw def ci formation bi d'abord na nga nek ndaw rek na nga nek ndaw ensuite euh, nga mën a lire mën a bind loolu la ñu laaj parce que euh, association bi ñoom li ñuy xeex mooy ndaw yi di jël gaal yi di dem Europe mën nañ fa dee mën na lu ne mën nañ leen faa dal loolu la ñuy bañ moo tax ñu bëgg ndaw yi nekk fii ci réew mi liggéey fi tekkee fi. waaw jeunes yi bëgg nañ ko bu baax ndaxte chaque fois bu ñu nee formation bi day am donc rapidement en 3 jours 4 jours nombre bi fees. dañuy dressé benn liste d'attente te duñ ci sax mujj woo kenn parce que ku xës ba dugg dootoo nangoo génn. waaw ndaw yi dama leen di wax rek nañu ñëw ci siège yu Africa Feliz bi mu ngi nekk ci deux voies ngent yi alors nañu ñëw foofu donc chaque fois que formation am rek dañu leen di informer aussi di dugg ci seen page

feu bi bu fayee verte bi zone bi tàq benn diir yi dañuy commencé circuler naag wàññi seen excès de vitesse maanaam pour jox signal signal ñi nga xam ne ñu ngi woon fi taxaw di xaar ne leen lampe bu rouge bu rouge bi kat léegi mu tàq léegi mu fay pour yéen seen euh, ngeen mën a dem léegi boo lampe bu rose bi tàqee ñoom dañuy taxaw léegi bu verte ñu am possibilité mun dem ñii dem ñii mën a taxawaat xaar ba seen lampe bu vert tàq ñu mën a demaat. four bu ko soxla ñu def ko fa weesuwul deux cent mille donc parce que boo xoolee alimentation bi li ci war ca solaire lépp bagaasam cent mille léegi équipement bee ci kaw mook lampe yëpp boo leen boolee cent ba donc maanaam daal deux cent mille bu ñu ko amee Carrefour bu ci nekk wa pour deux cent mille par Carrefour Carrefour bu ci nekk boo amee deux cent mille mën nañ ci monter. feu rouge bi donc dana tax agent de police aussi noppalu parce que tout le temps ñu ngi ci naaj bi d'accord des fois ak risque yi des fois nga gis ay jakartaay yu leen di waaj a félag yu leen di félag yeneen ak yeneen ak yeneen et puis monde bi foofu la jëm parce que lii c'est automatique ah d'accord kenn nekkul di taal kenn nekkul di siffler kenn nekkul di saagante voilà moom mooy réglementaire boppam da nga koy installer rek activer jeex na nga dem tëddee. Donc d'ici l'an 3000, Une cinquième promotion qui fait ma fierté, qui fait notre fierté, parce que c'est une promotion qui a vraiment montré euh, des relents de personnes prêtes à aller sur le, sur le marché du travail directement, soit en entreprise ou à travers l'entrepreneuriat. Et cette semaine de l'entrepreneuriat, cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, je pense que euh, est un signal fort pour ces jeunes, mais aussi pour les autres jeunes qui sont passés par les formations d'Africa Félix Sénégal. C'est le lieu de dire que euh, la formation est un élément fondateur de tout, tout ce qu'on veut faire pour aller vers l'employabilité. et je crois que les jeunes l'ont compris. Les jeunes veulent cheminer avec Africa Félix Sénégal. Et là, c'est le lieu de lancer un appel à tous les autres jeunes de Thiès de venir rejoindre l'aventure d'Africa Félix Sénégal pour que nous puissions ensemble comprendre qu'avoir un métier, c'est comme avoir une seconde identité. Et avoir cette seconde identité va nous permettre de développer ce pays, d'aimer ce pays, d'oser rêver avec ce pays et surtout de ne pas prendre l'aventure périlleuse de l'immigration irrégulière. Parce qu'au niveau de cette formation, on a beaucoup de corps de métiers, policiers, gendarmes, conseillers juridiques, des gens qui sont venus de Pout, de Rufusque, de Siwol. Et ça, ça nous rassure. Ça nous rassure ça nous, par rapport à cette aventure citoyenne qu'on est en train de mettre en place, par rapport à ce groupe citoyen qu'on est en train de mettre en place pour Thiès, pour le Sénégal, dans le travail que nous faisons, ce travail de développement communautaire. Quand on pense former les jeunes de Thiès, on est en train aussi de former d'autres jeunes qui ne sont pas de Thiès. C'est vrai qu'on est à Ziguinchor, mais là, on a travaillé avec des jeunes qui sont venus de Saint-Louis, qui sont venus de Louga. Ça nous rassure, mais aussi ça nous réconforte et ça nous encourage dans cette ligne directrice qu'on a tracée.